maître El Hadji Amadou Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow nekkoon nga ministre de la justice ci Sénégal nga bokk ci parti démocratique sénégalais ak ci courant bi di suqali soppi alors euh, maître ñu interpeller la d'abord en tant que ancien ministre de la justice noo jàngatee situation bi nekk ci yenn prison yi rawatina ak bu Jurbel bi nga xam ni coronavirus bi laal na fa détenu yu bari ak euh, surtout yan loraange la mun a jur ndax feebar bi ku ne xam na ne ni muy lawee dafa gaaw. Euh, lu mel noonu parce que nag euh, ay nit soo leen waree ñu dénk la ay nit parce que ñu leen dénk ne duñu ay mala ay nit lañ leen la ñu dénk administration pénitentiaire la ñu dénk gouvernement bi su la dénkee ay nit ba pare euh, ñu sàggan ba lu mel ni dal leen loolu ab njàqare dina ci am loolu lañ ko mën a jàngatee ñuy wax ne nag loolu première jàngat bi ñu ci war a am bi moo di naka la ñuy nit ñi ci kaso fa ba xam ne am nañu jàngoro wala amuñu jàngoro balaa ñu leen di boole ak nit ñi loolu mën nga ko def Dakar waaye soo demee ci biir euh, région yi dafay jafe trop trop nga def ko parce que amuñu fu ñu leen di mën a def loolu su amee nag euh, ñi nga xam ne bi ñoom ñooy euh, ñiy atte attekat yi muy juge yi muy procureur yi ñoom ñoo war a ànd ak dal tuuti xool ñan la war a mën a dugal kaso ak ñan la ñu war a mën a dugal kaso parce que kaso attanul ñëpp damay wax nekk ci donte ne lu ñuy tere la mën nees nañ ko bàyyi tuuti jox ak bàyyi ndégandiku ba ñu koy atte loolu mooy li nga xam ne loolu la yoon digal ku dem kaso mooy ki nga xam ne ki pexe donc dañu dugal ci kaso yi ñi nga xam amuñu pexe ba mu wóor la ne suñu leen woowee dinañu leen euh, mën a atte dinañu dellu si wala yokk ci nag ne euh, tey jii réew mi tëj nañu frontière yëpp te nit ki soo ko soo ko même soo ko tëjalul kaso soo ko dugalul kaso nga bàyyi ko nekk suñu soxlaa nu si amul fu muy dem mënul génn réew mi parce que amul fenn fu muy jaar pour génn réew mi kenn mënul génn réew mi nañu bàyyi ci kaso bi ñi xam ne bi danger nañu danger boo xam su naan bàyyi ci biti xëy na mën nañu def ay loraange yu rëy rëy rëy waaye ku tox yàmba wala ku def lii nga xam ne bi li ci ëpp sa bopp dong ngay lor ñu mel noonu mën nañ leen bàyyi ci biti bàyyi leen bàyyi nëgandiku ko ñu leen dugal ci kaso yi ñu fa ñu indi fa jàngoor wala ñu jële fa jàngoor suñu fa jëlee jàngoor ñaar la ñuy gaañ dinañu gaañ ko dinañuy gaañ ñi liggéey ci biir kaso bi te nit nag fa ngay liggéeyee gouvernement bi taxaw jox la ne la donc dañu bëgg nga fay liggéey ba pare gouvernement bi ay nitu gouvernement bi def seen jëfin jëfin bi day tax yow nga ànd loolu a maytu maître kon da nga euh, la wala mënuñu wax lajjite xam nga man du ma jaaru ki wax lajj du lajj damay damay xool mbir mi nu mu demee rek ne am na lu ci am na ci ay tolof tolof soo amee ay tolof tolof dañ koy toog waxtaan dañ koy wax ba ñi xam ne bi tey ñoom ñoo ci war ñoo ko ñoo ci war a euh, indi ay saafara ñu mën a am taxawaay boo xam day tax saafara am lool rek ci am solo waaye kenn du wax ne lajj la wala du lajj situation la parce que nit ki aussi dañu waxante dëgg nag suñu jàppee nit euh, mu def la mu warul def ñu tëj ko kaso ñu wax ne ñi ko tëj kaso ñoo ko tooñ moom moo tooñ boppam moom mi fa dem moom mi def la nga xam ne ni moo tax ñu dugal ko fa. ñu ñëw ci bracelet électronique euh, muy loo xam ni Sénégal euh, mi ngi ci jëm euh, conseil des ministres adopté nañ ko assemblée nationale également léegi ñu war a jëm ci doxal ko mais ndax yaakaar nga ni Sénégal techniquement pare na pour dem ci loolu. mën nañ ko waaye la mu jeng la mu jeng lam la goo xam da koy dañ la koy takkal. mu foo dem mu xam day topp xam foo féete. lam boobu day tax nit ki suñ ko waroon a mën koy bàyyi muy waaye fu mu dem dinañu ko xam loolu xam nga ne wax dëgg ne xel moo gën tëj kaso waaye parce que lam bi nag dafa am ay ay ay def euh, euh, daf mel ni rajo yu muy yu xam foo dem ñu lay mën a xam laaj na ay teg dëgër tànk waxambaane du ñàkk eh, ci njëlbeen bi mu am ay tolof tolof waaye suñ demee ca ca njeextal la waaye daal jàpp naa ne daal ci réew mi. Mhm. c'est juste euh, maître Sall di syndicat bi jaboote ñi liggéey ci wàllu yoon euh, yàgg na boobaak léegi ñu ngi soobu ci euh, grève boo xam ni ay ñaxtu naturellement moo ko lal waaye ñu dal ci tekkaaralu ministre de la justice bi fi nekk tey di itam beneen maître Sall situation bi tey ci wàllum yoon noo ko jàngatee. waaw xam nga damay wax naan man nag lu ci sama jikko ñu dénkoon ma dara loolu ñu ma dénkoon ba pare ñu jël ko jox ma am ci li nga xam ne daal ñoo ma ci wuutu ma am lu ma ciy wax parce que du ma du ma critiquer ñoo xam ñoo ma wuutu kooku ça ne se fait pas donc du ma ko d'autant que euh, ki fi nekk ki it euh, sama sama xarit la euh, ñoo bokk di nekk avocat du ma du critiquer waaye li ma mën a wax daal mooy lii parce que aussi wax moom mënta bañ a am mooy grève yi am ci ministère de la justice dafay day dafay tënk liggéey bi day jeng liggéey bi loolu su amee laaj na nag nit ñi war a mën a waxtaan seen biir waxtaan boo xam ne day tax euh, service public de la justice loolu lépp loo xam ne nit ki àdduna dañ ko war waxtaane lu ñu war waxtaane ba euh, ñu mën ci am euh, saafara. maître euh, ñu daal di ñëw ci taxawaay wi Sénégal am jàkkaarloog Union européenne dañoo tëj seeni frontière ngir yenn réew yi ubbil ñeneen Sénégal itam daal di def dóor fayu tëj ay frontière am ngir Union européenne boobu décision la ci sa xalaat. xalaat moom loolu moom dama ci kontaan lool wax dëgg de xel parce que nag fu laay jaay ni ko wala fi waxee fu laay jaay Dakar moom mosu koy jeexal nit ki daal ku la xool ba mu toog ba mu neex ko mu ne la tëll ajji sab kaabaab amul ful la gutal ne itam nga ne ko tëll delloo ko ajji euh, yi seen diggante ñaar rek ci am kenn ku ci nekk danga ci am njëriñ euh, njëriñ lu ci kenn am ak li nga xam ne ne bi la ma def ma fayu ma delloo la ku ma de ku ma ku ma ku ma ji teraanga ma delloo la teraanga ku ma ji saafara ma delloo la saafara su ma ko mënee su ma ko mënul ma def leneen lu may def waaye nag mënuñu nekk foo xam ne si tey jii soo demee tugal lu ëpp téeméeri junni nit fa am euh, jàngoro yi coronavirus téeméeri junni ëpp na ko li ko fa am lu mat parce que fanweeri junni nit dee nañ fa su doon kuy moytu sa morom lu ñun ñoo leen war a moytu parce que ñoom ñoo ñu ko ëppale fuuf su amee kuy wàlle ñoom ñoo ëpp lu ñu koy wàlle kon su doon am na ku war a tëj sa frontière ñun ñoo war a tëj suñu frontière di leen moytu kon ñoom suñu tëjee seen frontière dafa mel ni leneen lañ ciy jublu waaye jublu wuñu ci pour aar seen bopp parce que doon pour aar seen bopp la ñun ñoo war a aar suñu bopp parce que ñun ñoo leen war a moytu d'accord kon ñoom suñu toogee bu mu neex la dañu tëj seen frontière kon ñu tam dañu tëj suñu frontière suñu ñu du ngeen dugg suñu dëkk àdduna noonu dong moo ci am ci diggante ay réew kon euh, décision boobu xam na ne bi Sénégal jël nag te du Sénégal dafa ko jël gis naa ne Gabon it jël na ko euh, damay ñaan réewu Afrique yëpp nañu am fulla suñu bopp ba euh, ñu kenn bañ ñu mën a yet d'accord da jàpp ne am na leneen lu ci nekk kon bu fekkente ni ci wàllu wérgu yaram lañ ko teg ndax ubbil réew yoo xam ne yeneen xëy na ñoom sax ñoom tam ñoo gën a metti le Sénégal situation waaw demee ci réewu réewu réewu réewu naar yi nekk fii ci ci Maghreb d'accord mu di ay Algérie ak Maroc ak Tunisie ñoom ñëpp ñetti réew yooyu benn bu ci nekk moo ñu ëppale jàkkee jàngoro te amul kenn koo xamee ne bi sa paj ni nga ko pajee fajee ak na sa taxawaay ëpp na ñun suñu taxawaay parce que ñëpp nangu nañu ne euh, yu mel ne ay réew yu mel ne Canada dañu ko nangul nangul nañ nekk Sénégal tey ci mbirum coronavirus wan nañ ci xarañ ak ak ak njàmbaarte ak ngóor a goo xam ne rek wax dëgg de xaala dañ ko war a dañ ci war a am am am as bànneex donc suñu toogee réew yoo xam ne ñun ñoo leen tene ci ci coronavirus ñu ubbil leen ko kon mel na ne am na leneen lu ci lalu su dee am na lu ci lalu te ñun xamuñu lan la nañu am suñu fulla bopp ba nga xam ne ne bi euh, mu am lu ci lalu ak lu ci laluwul yëpp moo di ñun nañu doxalee fulla ba ñëpp xam ne ne fulla la doxalee tëj nga sa réew ne du ma fa dugg tëj naa sama réew mhm. ci mbirum foncier bi maître dellu si na euh, réew mi fan yëpp ci ay coow yenn saay nag ñu joxoon ci baaraamu tuuma euh, nguur gi fi newoon muy yéen ak président Ablaye Wade alors problème bi ci sa xalaat jàppale ak nan la ñu def ba yegg si tey ci situation bi ñu yegg si. waaw damay wax ne yomb na lool ñuy ñuy euh, ñuy ñuy euh, joxoñ nit man jàpp naa ne képp ku joxoñ Ablaye Wade da ko tooñ képp ku joxoñ nguuru Ablaye Wade da nga ko tooñ réew mi nag tàmm nañu di tooñ waaye loolu amu ci amul amul amul solo tooñ fi lañ ko fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi amul solo parce que ki ko ki tooñ ngay waxal moom mooy moom moo moom moo toog conscience am ni ko tubaab yi di wax dama bëgg wax rek ne euh, mbirum suuf dañ ci war a ànd ak dal daal rek moo koy réglé parce que suuf dafa am solo ci réew mi. soo xoolee Sénégal depuis 1964 ba léegi jamonoy Senghor loolu Senghor a ko fi indi suuf li ëpp ci suuf si soo jëlee euh, téeméeri suuf presque juróom-ñett fukki ak lu ci topp ci domaine national la bokk su dee nag suuf yi ci domaine national la bokk pour nga mën ci am nga mën ci jot jot ndegam pour dëkk la wa ilaa bokk pour bay la wa ilaa pour sàmm la wa ilaa pour tabax la wala pour du mënti doon il faut nga jaar ci nguur gi mu jox la permis dëkk la baaj mu jox la autorisation d'occuper réew mi moo koy joxe te suuf yee ñuy joxe muy suuf soo xam ne dafa nekk ci boori géej ak suuf su nekkul boori géej bi benn la kon loolu lañu ñu war jëkk posé ne képp kuy am suuf nguur moo la koy jox su dee nag képp kuy am suuf nguur moo la koy jox li ñu war a jëkk xool mooy naka la nguur di joxe suuf si kan la ko war a jox ak ñan nan lañ ci war a tabaxee loolu soo ko reglee rek lépp réglé soo ko réglé wul nag problème yi dafay des soo demee tey jii ci biir réew mi ci ci ci ci réew réewu taax euh, réewu kaw gi nga xam dañuy bay bés yàlla sàkk nit ñu xuloo naan la amoon naa suuf sama suuf maam maa ngi ci doon bay nañ ko jox ko keneen te buñ koy nangu teguñu ko ci yoon d'accord kon loolu loolu loolu dañ ko war a réglé loolu lu am solo la ma ma wax ne euh, suuf si ëpp solo si indi coow mooy suuf si nga xam ne bi dafa féete dafa dafa dafa dafa féete ci boori géej féete booru géej soo ñëwee fii Ndakaaru nga jógee euh, Almadi ba Ndar dañ fay tabax Parcelles Assainies bi ay réew ay ay ay ay ay ay nit a fa dëkk Malika ay nit a fa dëkk boori Kër Masaar ay nit a fa dëkk noonu lañ koy defee nga topp ko Kayaar fépp ci boori géej gi la donc boori géej dañ fay dëkk soo demee ci bitim réew boori géej dañ fay dëkk waaye il faut que ñu xool naka lañ fay dëkkee soo ko deful da ngay ñëw tey ñu jox Amadou Sall bàyyi diw wala ñu jox diw bàyyi diw loolu c'est pas ndax ci ak ci réew mi li ñu bind mooy nit ñi dañu yem njub dañu yem dañu yem lépp amul kenn gënul sa morom loolu lay république di doxee kenn ëppalewul sa morom euh, amul lenn loo xam ne bi dañ koy teg ci juddu wala dañ koy teg ci alal nit ñi dañ leen di yemale su dee da nga dëkk ci réew moo xam ne nit ñi dañ leen di yemale il faut que nga génn ay sart yoo xam ne bi nit ñi ci yemale googu dañuy xam kenn ku ci nekk la nga war a mën a am ak loo warul mën a am newuñu looy am ak loo dul am waaye la nga mën a am ak loo warul mën a am parce que loo war a mën a am nga dox ko loo warul mën a am nga xam waroo ko mën a am réew noonu lay doxee mhm. loolu suñu ko defee rek coow li jeex waaye file ak defuñu loolu coow bi fi jógee kon dañu xool li indi coow li ñu réglé ko ñu war ñu war a dëkk ci ñu bëgg dëkk ci buntu géej euh, am ñu ko bëggul lébu yaa ngi fi dañu dëkk ci buntu géej ne ne ne boori boori yi ñi nga ñoo nga xam ne loolu mooy seen métier donc tefes lañ fay dëkk dañ fay liggéey nañu xool nag naka lañ fay dëkkee yan anam lañ fay dëkkee ak yan anam lañ fa dul dëkkee loolu suñu ko defee rek mbir mi sotti ak suñu ko ñu fay dëkk aussi lan lañ fay tabax parce que man du ma am kër tabax sama kër ba pare yoon ne ma am naa sañ-sañ bànneexu ci géej gi parce que bànneexu ci géej wa ilaa da ngay dem di ci sangu wa ilaa dangay dem di ci doxantu wa ilaa nga toog sa kër ko séen seen seen tugi rek mën na indi bànneex d'accord loolu dafa am loo xam aussi euh, mënuma am euh, tabax euh, am yan may ma ma taxaw di xool géej di ci bànneexu ñu yeewu suba teel rek kenn ñëw sama kanam tabax fa benn tabax bu xam na ne bi vingt étages la lor ma wala xañ ma li nga xam ne ne bi waroon naa ko am loolu yëpp lu ñu war a waxtaane la ba déggoo ci suñ ci déggee nag mbir mi dina sotti waaye fi léegi defuñu ko nag tool yi du fi jógee. d'accord ñu jeexal ak politique maître Amadou Sall géej nañu laa dégg lool ci lan nga ne jamono yi ci wàllu neel yow gën nga ma dégg xëy na wax rek waaye dafa fekk ne non seulement ñu ngi wax waaye euh, tey ji wax dafa wàññeeku. Euh, olof mooy wax ne euh, fa ñuy feese kenn dafa jooytub góom te tey jii réew mi toll na foo xam ne fii dafa metti nit ñi ñu ngi feebar ñi ñu ngi bakkana ngi lor wadd ndax coronavirus kooku kooku rafetul sax tegginuwul sax ñu ñëw foofu la coow li di bëri ñuy wax affaire mbiru politique loolu te ñëpp du man rek ñëpp la kenn waxul président de la république waxul opposition yi waxul suñuy suñuy wax bokk ñu bëri wàññi nañu seen i wax donc kon ñëpp wàññi seen i wax ndax coronavirus bi loolu rek la li ci des nag ñun ñu ngi yëngatu ñu ngi bokk PDS euh, bokkandi ba pare nag euh, bokk ci suqali euh, may wax ne tey jii Sénégal yëpp gis nañu ne que donte na ñun PDS la ñu bokk ñu ngi ci bokk bokkandi gis nañu ne fii ak ngi ni PDS benn dajewuñu kenn defu fa dara dernière fois bi nga xam ne bi PDS toog na ñu réunion mooy di mooy réunion comité directeur bi président waa di diriger woon fële balaa ñuy def élection présidentielle or élection présidentielle weesu na am mat na léegi at ak genn wàll parti boo xam da nga ji da nga jiite am réew at ak kële euh, euh, fukki at ak ñaar nga jiite ko am réew nga nekk ci opposition ñaar fukki at ak lu ci topp nga toog at ak genn wàll def réunion woo waxuloo kenn déggu la parti boobu day soox. waa lan moo waral ñàkk réunion bi ci at lu tegu. ah loolu loolu nag moom xam nga moom pa parti bi dafa nekk ci dafa nekk ci ay tolof tolof dafa nekk ci crise PDS suñ ko waxee suñ ko waxul yëpp dafa nekk ci crise crise bu méttee métti métti métti métti métti nit koo xam ne que da nga toog amoon ay tànk di daw waxuñu sax nga toog do nga gële nga nga waaxu waaye dox sax mënatoo ko ku toog boo doxatoo kooku xam nga ne moom am na crise kooku suñ ko dee ne nag da ngay wax dëgg nga naan lii mënut a wéy man boog man mënu ma nekk ci politique nga xam ne parti politique leen moo ko tax a jóg man de leen moo ma tax a jóg nguur jël nguur gi pour doxal dañuy def politique parce que dañu jàpp ne ñun suñu mbëbët moo gën ci réew mi dañu jàpp ne suñu xalaat moo gën ci réew mi dañu bëgg jot ci réew mi pour doxal li nga xamam lañu yaakaar ne moo gën ci réew mi loolu mooy li tax a jóg parti politique su loolu moo la tax a jóg doxuloo waxuloo defoo xalaatuloo kenn déggu loolu day wane ne ko doo dem fenn domaine bi dara waddu fa kenn du nax kenn du nax kenn donc ñun li ñu tax a jóg mooy jël nguur dogal nguur loolu moo tax a jóg lu dee loolu moo ñu tax a jóg nag ñu war a toog foo xam ne fi kenn du fa def dara amuñu gisuma lu war a tax ñu defa toog te non seulement gisuma lu tax ñu war a toog waaye ñun ñi nga xam dañu nekk ci biir yëkkati ñoo la bàyyil loo yëkkati ñoo la bàyyil waaw loo yëkkati ñoo la bàyyil te kenn deful dara kon ñun ma jàpp ne euh, ah, su fa tekkeet bëriwul te nit ki nag wax dëgg ne xeala nag euh, da ngaa daagu fañ la nowee euh, su dee da ngay toog ci biir mu mënoo fa am dara parti bi demul fenn leen daal moo ci war wuti pexe di fi leneen ñu ngi ci wax leen ne itam soxlaatuñ leen man soxla soxla ma ko ma soxlaa ko ma soxla xam nga lan laa soxla man sama bopp mm. man sama bopp sama bopp laa gën a wóolu man damaa wóolu sama bopp dama wóolu li ma doon dama wóolu fi ma jaar parce que damay dox dëgg am lu ma gis am lu ma bëgg ci sama réew li may doxal lépp sama xel laa ko teg ak sama sama njort gu rafet ne li ma yaakaar ne moo baax ci réew mi moo gën ci réew mi kon man noonu laa koy doxalee soxlawuma nit ki taxaw ne wóolu na ma wala wóoluwuma man li ma soxla mooy li réew mi xalaat ci li ma leen di wax te jàpp naa ne ñun fu ñu jëm réew mi xalaat na ci lu ñu bëri parce que euh, su dee ngor la képp koo xam ne bi xam na ma xam Babacar Gueye xam Oumar Sarr xam nga ne suñu digganteeg Ablaye Wade ngor la ak dëggu parce que ba ñu demee ba kenn toogatul ci wetam dañu fa toog ba mu mettee dañ fa nekk lépp lu ñu war ñu di ko def utuñu ci dara seetuñu ci dara lu dul li nga xam moo ñu moo ñu boolee ak moom moo ñu séq ak moom waaye suñu toogee tey ba ñu ba ba ñu dem ba nga xam ne bi li ñu séqali doxatul dara doxatu fa dara dematul dafay jot nag nga ne ah fii su fi toogee damay loru kon da di dem du toog di def lu koy lor. ma ne kon bu ma la déggee ci tànki dem ngeen nekk. ah suñ ci nekkul it de sori wuñ ko. sori wuñ ko euh, ñu ngi ñu ngi waxtaan pour xool suñu biir lan mooy suñu taxawaay ak lan moo gën ci ñun. ndagam dañuy toog du ñu def dara ñu ñuy ñu ñuy teg tànk ñu nangu ko wala boog ndagam dañuy taxaw xeex li nga xam ne di moo ñu tax a jóg non pas euh, xeex pour xeex waaye xeex pour. Euh, li nga xam ne moom la ñu yaakaaroon ci PDS mooy xeex pour jot nguur gi doxal nguur gi ngir léew mi su dee loolu nag mën nañ ko am ci PDS ñu ne mën nañ ko ci am su dee dañ ko mën a am ci leneen ñu ne ci leneen lañ ko mën a amee su dee dañ ko mën a am ci defar leneen loo xam ne bi parti la ñu def ko su dee beneen façon la ñu def ko waaye li nga xam ne bi moom moom moom moom leer na ma ne euh, mooy ni ñuy doxalee ni mënuñu continuer di ko doxalee parce que kenn mënu ko mënee su ko nangu. jërëjëf maître El Hadji Amadou Sall amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow euh, nekkoon nga fi ministre de la justice yaa ngi bokk ndéegum ci parti démocratique sénégalais ni nga ko waxee bokk itam ci euh, courant su xali soppi. merci beaucoup man maa lay gërëm.